thank you very much Aïssa comme nu ma la ko waxee rek te moom legal issue bu ñoo indi fii mooy ah, court si ndax nit bu amee problème rek da dégg dem na court dem na court dem na court léegi dem na court bi day mel dem na hôpital <laughs> su case amee da ngay gis si xam nga rek si court bi sometimes nga bugg a dugg dugg waaye court nag am um, is very important soo xoolee Gambie ñun ñu ngi am court a well structured court in 1997 mooy su suñ loi bu ñu am nii moo establish court under section 120 moo ko establish mm-hmm. course yi nak dafa am different court nekkul fu la neex nga dem am na ay problème yi nga xam ne soo ko amee fii rek nga mën a dem they have jurisdictions jurisdiction boo ko déggee mooy the power of the court to hear and determine cases um, if you file a, your case in a wrong court perhaps you will even lose your case mm-hmm. so da nga gis ne magistrate court am na ko magistrate court mooy court bu nga xamante ni moom moo ñu gën a jege te toj toj yu ndaw yu mel ni trafic offences yi yu mel ni yu ndaw a ndaw yi nii bor ak yooyu noonu. fekkee amul one million yu ndaw a ndaw problème yi bu xoox yu ndaw de. parce que xam nga am like like those those uh, you know misdemeanors crimes very small crimes you you can refer them to the magistrate court. and when it comes to crimes that have to do with money if it is um, more than one million you cannot refer it to the magistrate court uh, because um, the, the, the, the economic crimes you refer them to the high court. I can know I'm the power to determine. But all criminal matters, you can go to some of the criminal cases, you can go to the magistrate court. Why I'm not going to direct to High Court because the High Court have exclusive original jurisdiction to determine all cases of you know criminal matters. So they have under the High Court, we have the, the, the High Court itself, um, we have the, the, the, the criminal division, we have the civil division, we also have the, the, the, the court martial. The court martial almost have the same jurisdiction with, um, with, with the High Court. Almost they are, they are the same footing. But the court martial, the only different, they only determine issues regarding security personnel. Mm -hmm. That's the only thing they, they, they, they look into. But under the, the High Court, you can hear a case, they can have, they have a criminal division that determine serious crimes, like crime of, you know, treason, murder, manslaughter, and other stuff. They can, you know, determine that. So it does not stop from there too. If you are not happy with any decision, is open for you. Oh. You can either sleep on your right or you proceed to the Court of Appeal. But you know, in proceeding to an appeal, there must be grounds. If you have grounds for appeal, then you mm can appeal. Mm It's not just a matter of it's, a, it's of right, I have to do it. Mm If you have any ground of appeal, you can appeal. Perhaps the way the evidence were attended was wrong, there were um, evidence that the judge did not consider, and if the judge is considered that decision, it will have been very helpful to you, so you can appeal on those grounds perhaps there is a miscarriage of justice or there was malicious, you know, intent that was even, you know, or the, you know, the, the principle of natural justice was not adhered by the judge or the people beside you. Mm -hmm. So those are some of the grounds that you can have, you know, an appeal. So if you also appeal to the Court of Appeal, the Court of Appeal, they have what they call the appellate jurisdiction. mean they can only determine case of appeal. Mm. -hmm. They can hear any from case, any case that they had here rather, it should be a case that come from the the, the um the court the high court or court martial or court is, courts like the Cali court. Mm, -hmm. okay. The mm-hmm. Cali court also have the same footing with the um the high court. So the, the Cali court, we lan moy sen tank We learn the new world. Wow, the, the Kaji court um, determine issues regarding marriage, inheritance, and divorce. Ah, ni, ni But particularly, huh? wow, Kaji court, boko dege moy court mo mm-hmm. ngamane ni um is set in such a way that it is, is it is only meant for the Muslims in the Gambia. Mm-hmm. Court bobu mo day wax uh, walu sey mm-hmm. naka lañ koy dogalé ci walu bu dé julit nga. Moy dogal loi da loi ci waaw exactly. Comme bo bëggé tas. Waaw. Tas tamit mom la. So ko bëggé dogalé. waalo yi fen nag doona waaw ngeen doona tamit moom la so mom, loolu mooy jurisdiction am matter of uh, inheritance ah, divorce waaw marriage divorce and inheritance for Christians they, they, they, they, ah, they courts. conventional courts oh, okay. so if you are also not happy you can also appeal mm -hmm. uh, you know but the so long as the, the court of appeal is concerned they only have one jurisdiction now the supreme court is the most interesting part and mm -hmm. the mm-hmm. most powerful part yeah. um, it is the highest court and any decision that they give is binding over all the lower court, ranging from the magistrate court, the high court, and the court of appeal, and all the district tribunals. The decision of the Supreme Court is binding. The, uh, the Supreme Court have a number of jurisdictions. One, they have what they call exclusive original jurisdiction. Um, they are the only court that interpret the provisions of the Constitution. Mm -hmm. And they are also the court that interpret documents. Like if you have a document and you want it to be interpreted, the best mm-hmm. court that can interpret it is um, the, the Supreme Court. Mm -hmm. um, election matters. Election matter, presidential election, parliamentary election, other stuff. The best court you can go also is the Supreme Court that should determine it. Mm -hmm. And it is also the Supreme Court that can only hear appeal from the Court of Appeal. Mm -hmm. So they have original jurisdiction, exclusive original jurisdictions on certain matters like election petition, mm-hmm. interpretation of some provision of the Constitution. Um, they also have appellate jurisdiction to determine appeals from the Court of Appeal, but um, they also have supervisory jurisdiction, equally like the High Court. Uh, they supervise. loolu léegi kon donc xaaral parce que foog naa a di borom kër ñoo toog ne leen génnal ñoo dinañ bëgg a xam fu ñoo dem da gis koo xam ne tam dañ koo mu ne damaa dem koor damaa dem koor ok kooku tam she would like to know where to go wow, um, because um, you'll be living in a house just all of a sudden I think come um, and the landlord will be like you have to excuse me so those are the problems most of our viewers go through mm-hmm. They're okay, some of okay. us will be like we'll be living in a house mm -hmm. yeah I understand mm -hmm. and borom kër bi ñëw rek mu dog ndox bi you know uh, and lu ñëw mu ne kay it's my house so those are the kind of problems we do bu mu ne kay génnaaw la rek parce que xam nga no am na am na nga gis jigéen boo xam ne rek you in your matrimonial home like sa jëkkër ngeen am problème rek you have a problem and then he asks he asks you to leave the house that also will also like to know where to go. Mm. Those are the problems most of us face in the society. Ah, you know nga problème yi élection ak yëfin yi yooyu noonu ñu ko ñu si You know, yooyu noonu xam nañ ko sax because ñun ku dem ba ne da ngaa dem taxaw yi ku nekk président wala ku dem ba ne da you know what exactly you should do. but people like that ask. waaye man lu ma lu ma lu ma bëgg a laajte mooy Omar ndax dangaa dem si code bi ñu jox la lawyer boo xamante ne moom ngay xaaya wala dafa am lawyer foo xam ne foofu la ñu nga xaaya leen doog leen naa yóbbu ci code bi ñu waxtaan boobu am na njëriñ te loolu laa waroon a commencé may jégalu bu baax waaye nag ah, lu am bi am mooy rent mm-hmm. dafa am lu ñuy ooyee di rent act mm-hmm. moo koy régulate waaye li ci na topp loi comme bëgg luwaa boo xam ne mooy. moo moo ren rek lay waxtaanee ko. waaw bëgg luwaa moom la ñuy ah suma yaay mu jógee foo ñu du ko xam. parce que yaa soo demee ren ak bi dafa waroon special office bu nga war a ñoom. sorry viewers we should you know localize this so that people can know exactly what we are talking about. because most of our viewers. uh, eh, they are more concerned into this topic don't don't know how to speak English mm. or don't cannot understand English or this legal term, legal terms. Mm -hmm. People like me, I don't know. Ba ba ma jaay fa professeur sa wax ci wolof rek. Yeah. Bem ah, so bem li bi jé. Hmm. Xam nga rent dafa am loi bu ñëw rent act. Bo mo ëmb lépp lu nga mënte mu ngay dem ci rent. Digante landlord bi ku rent ak everything. Légui problème bo am ci hmm. rent tribunal ngay dem. Hmm. ren tribunal nag boo ko buggee xam dëggantaan boo demee magistrate court bi. ren tribunal. ren tribunal it is created by the Rent Act. so ñu bëri xamuñ ko nag it's called the Rent Tribunal. moo boo mo boo mënee déterminer xam nga ren. loi bi def ne soo nga dem. Mhm. nga wax borom kër gi. Mhm. borom kër gi dafa war applier wala ñu oo against yu eh, eh, bi Rent Tribunal special bu nga ma dem mooy ñëw évaluer kër gi. Mhm. ndax jar na 5 million 5000 boo ko wax ne jarut ko. ñooñu ñu determine based on the quality and the structure of the house ñu ne ah li de bax na ñi nga have an agreement mm-hmm. nga payer sa advance in in the event ne yow dem nga ba bankro wala dem nga ba lo xaalis sa advance boobu mo lay koba nga def lool ñu jox la kayit ñu def contrat gaay ñoo di fayeku wala su ngeen amé agreement ne borom kër gi mën nako fayeku di la jox receipt wala day sen estate again bu nga xamante mo ngeen mo ngeen li ah yobu sen fayekay loi bi ñom every moo ñu ñew li ko fayeku ko mm-hmm. loolu amna waaye nit ñi ngay gis problème bi mooy ñun duñ ko jaarale si yoon te bu soobee yàlla yeneen émission yi naa ñëw xool waxal leen naka la ñoo luwaasee. waaw soo demee si koot yi tamit soo demee si koot si. am na problème yi nga xamante ni boo ko amee. You should design a document. For da ngaa ba dugg si kii ngeen ko dama bëgg a nii mu ne la ok ngeen waxtaan comme ne la next week nga ñëw tuxu nga ñëw dem tuxu nga toog fa. so soo amee problème dafa difficult pour nga dem si court house or something like I think it's good to advise the viewers. or people that are watching. Yeah, I think I think uh, we I will definitely um yeah. Uh, I will definitely create a platform where we will be educating people when it comes to civil education, mm -hmm. and perhaps the next um, program that I will be having will be solely purposely and intended to educate the people when it comes to this rent. Because land and rent issues, there are so many things. Yeah, Perhaps some of the houses that you rent, they are not fit for, you know, for, for a person to live. Mm -hmm. And you still pay money. way loo wax rek xam nga so amé problème légui lay ngay gis ni am problem awma loya dafa am problème yi nga ne boko amé nguur gi mo lay gaddu té lolu ci ninety eh, draft condition bi ci am doole trop légui da ngay gis ni fu mu ne nii crime like treason very serious crime wala nga ni xale bu ndaw dañ la dé outal loya mm-hmm. way dafa am yeneen crime soko amé ya koy outal sa bop da nguur gi mënu la jox loya bu ne loolu du am la moo tax yeneen problème yu mel nii say yu mel ni contrat yooyu yaa utal sa bopp looya waaye boo defee toj toj bu nga mën ne mun ne la tester ngir dund wala mun ne la reyaat loolu du state have to provide with legal aid soo nekkee xale bu ndaw e minor tamit nga commit a crime child welfare ñoom dañ lay réguler ban naka la ñoo def ba ñu utal ay lawyer bu nga lawyer of your choice mu dimbale la Because at that time, you did not understand the procedures mm. or your way of thinking might be very low. But if you also commit very serious crime also, your, um, your, the chances of you going to jail is too high. So si kaw loolu dañ provide with a lawyer nga mën a def lay defend mu guide la through the evidence and the proceedings loolu la moo day am. comme ñoo xamante lii may rek. ok now may na moo nekk koo xam ne amul ah, fukki at ak room nett ko su ko amatee rek may la moo nekk under each other te loolu si bële bi dina xóotal lii tamit am na solo yooyu dañ siy commencé waxtaan bi. ko people are going through it. lii la ñoo face. Mm-hmm. yeah. use of contract problème si réew mi. Mm-hmm. la jox ay contract of dafa toog rek. rent. kooku ñëw si suba ne ko dama bëgg nga génn nekk. rent da ngay nga xam ne ni ko jëkkale comme ça sa programme bi balal faaw bi parce que temps bi xoj nañu foog ñu jël bi rek dellu eh, si waa rek eggal si jeexantal programme.